mbokk yi seen émission Kouthia Show jërëjëf. Abou Mouhamed di la nuyu bu baax a baax tey di la ziar waaye noonu la ñuy ko fee daal di nuyu àdduna wërngal këpp comme ni nga koy waxee ginnaaw wax mu yegg sax yàlla la neex. laataa ñuy door dañuy santaat yàlla bu baax a baax waaye di julli di sërmal ci sangu-sang yi moom Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye ba tey naan jërëjëfati Serigne Touba suñu yaakaari tey ak suba ba tey ñu am mbégteeg bànneex jàkkaarloo téléspectateur Futurs Médias di leen présenté suñu Gambian bi nga xam ne moo nekk ci table bi waaye nag damay daal di door ci li nga xamante ne bii mooy sama gaamu day by day bi gaam bi nag pour góor jigéen ñëpp ko mën a utiliser nee naa la lait bi dina nourrir seen peau di ko protéger bàyyi leen ak teint doy waar te ni mu amee tamit lait bi noonu la amoo noonu la amee li nga xamante ne bii mooy savon bi am li nga xamante ne bii mooy gel de bain fekkente ne supporté woo savon bi rek mun nga jël li nga xamante ne bii mooy gel bi masàllaa dina la sangu booy sangu bépp picc bu fekk sa yaram dina ko dindi ba tey yemul foofu gis nga li nga xamante ne bii mooy poudre bi góor jigéen mag ndaw ñëpp ko mën a jël daw leen gaaw jënd ji ko ci li nga xamante ne bii mooy marché mi ngi ci marché bi ba tey yemul foofu gis nga li nga xamante bi a mooy gel bi a neex nag a nekk di mu daal di lay jox nga daal di yóbbaale waaye sama frotté bi dama ciy daal di insister bu baax baax maam booy yéen ñi nga xamante bi saa su ne da may laajte fu ñu koy jaay dugg leen ci marché yi boo leen joxee set yi foo leen dugg rek ne leen utal ma li nga xamante ne bii mooy frotté day by day bi dañ leen koy daal di utal te lépp lu fekk sa yaram moo xam tànk yuy métteeg ndigg ak lépp raay mu sedd laa ko tuddee daw leen gaaw jënd ji ko baax na lool ci li nga xamante ne a baax moom sama bi ma daal di dugg ci li nga xamante ne bii mooy li nga xamante ne ne bii mooy king kola king fruit rouge king ananas king citron king li nga ne bii mooy orange daw leen gaaw jënd ji rawatina li nga xamante ne mooy jamono koor boo leen lekkee ba pare da ngeen di xaw a diis pour ngeen digérer vite fait da ngeen di jënd li nga xamante ne bii mooy king cola mu leen di accompagner lépp loo leen mënta lekk boo leen ko naanee da ngeen di daal di digérer tuur yi ngénte yi xew yi takk yi moo ci gën a gaaw daw leen gaaw jënd ji ko moom li nga xamante ne bii moom mooy king mos mosaat laa ko tudde waaye dama koy jaajëfal bu baax a baax moom esponsor bu yanj bi ndax euh, peccum liir bu neexee nday jaay jàpp ca mbag ya boo leen di am émission bi di bëggee di reetaan grâce à sama sponsor yi waaye tey duma dem te gënumaa delloo bu baax a baax buy diwaanu Touba gi nga xamante ne bi démb fa lañ jógee gis nga ki nga xamante ne bi mooy Abou Bilal ak équipe am demoon ziyaare ji ki nga xamante ne bi mooy sëñ Muntaxa masàllaa ñu daal di koy dalal dalal bu mucc ayib dañuy remercier bu baax a baax kullu kuy yeewoo Touba rek ñu ngi lay remercier bu baax a baax ndax démb moom yaakaar naa ne xol yëpp seddoon na Abou Mouhamed mbokk yi mbokk yi am nañu mbégte ak kontaan bu mag di gërëm képp koo xam ne tey mate ay carax la sol yàgg naa ko wax ne ah, bés dina jot nga sol ay carax te kenn du la ko wax moo tax tey sol nga ko force mbokk yi am nañu mbégte ak kontaan bu mag ànd ak yéen sur le et la bénédiction de tous les xalif généraux njabootu Cheikh Omar Foutiyou Tall yëpp ñu ngi leen ziare Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu baax mi xalif général kulu murid yàlla fi yàlla bàyyi mu yàgg fi lool te daa day ànd ak wér di ziar tamit Serigne Bass Abdou Khadre bi yor kaddu kër ga Serigne Babacar Mansour Sy xalif général di ziar sama baay ju baax ja yàlla ko yàlla defal jàmm Serigne Mamadou Makhtar Laye xalif général day laayeen yala yàlla gudd fanam sëriñ Pape Mahi Niass xalif général bu Medina Baye yéen a ko yàlla defal jàmm sëriñ Ahmed euh, Cheikh euh, sëriñ euh, Ahmed Tidiane Khalifa Niass la wala Niass yàlla na ko yàlla defal jàmm di ziar tamit sëriñ. Cerno Samba Samora bi ñu koy ñaanal tamit moom fa mu nekk ci Fouta yàlla dafa ko jàmm imam Fansou Bodian xalif général de la euh, communauté euh, koy ñaanal kendalu jàmm waaye tamit Cerno Bachir Tall xolof euh, moom tamit ñu koy ñaanal yàlla may ko jàmm Serigne Muniru Jigéen xalifu Serigne Amadou Baro Jigéen Serigne Cheikh Bekay Kounta xalif général bu ziar ak Serigne Fallou Mbacke docteur docteur ci zahir ak ci baati yàlla defal jàmm euh, Serigne Assane Seck xale bu Thiénaba ziar nañ ko Serigne Cheikh Saliou Mbacke xale bu Serigne Saliou Mbacke ko Thierno Bokar Alpha Ba a fonde a nañ ko Serigne Abdou Karim Mbacke nekk ca Ndindi ñu ngi koy la communauté chrétienne jiite ko ñi ko jiite mooy cardinal Théo Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean yaay yi nekk ca Popenguine les bergères yal na leen yàlla nangul seen karam bi barke yontu yàlla Yesu Christ borom xel mu sell mi Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Buli ak yaay Adja leen di ñaanal defal leen kendalu jàmm suñu xel nag day dem si Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum na xippee ci àjjana gën a kawe euh, mbokk tamit ñuy ziara suñu baay ju baax ji Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy sa Tiwaawan alaaji Tafsir Sakho Iliman suñu baay la woon suñu soppe la woon na yàlla a ko xasaar la woon dafa dëddu àdduna yàlla ko yàlla xara ci àjjana gën a kawe Baara a ziyaara suñu papa alaaji Habibou Touré euh, nekk ca montagne ba Serigne Khayri Touré moom tamit ñu ñaan yàlla defal ko jàmm ci àjjana gën a kawe mu xëppee ci àjjana gën a kawe di ñaanal tamit njaboot gi yëpp waaye tamit Serigne Mansour Ndiaye Baye Fallou Serigne Fallou Touré ziar nañ ko alaaji Mansour Mbaye xalifa alaaji Umlu Mbaye Moodo Serigne Basirou Fall borom Njàq Fall maam Abdoulaye Kébé ca Cambérène ak Serigne Modou euh, Faye Gueule Tapée Kéemaanu borom Touba alaaji Sanjiri Diop moom tamit nekkoon waalo waalo bu mag waaliw Kaamin ci àjjana gën a kawe alaaji Moustapha euh, maam Modou Maktar mu xaddam la woon ci jamono Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu njabootu maam Thierno Niang ma njabootu maam Magay Gay njabootu maam Kër ñan ak njabootu maam maam Issa Sarr waali kaamil yi ma fa tudd yëpp ñoom ñu ngi nekkoon ca dëkk bu ñu naan euh, waalo foofu ca Ndombo yal na leen yàlla xippiroo ci àjjana yi gën a kawe yàlla teg loxo ci njaboot gi mu fi bàyyi Alaaji Soosa Njaay moom tamit suñu bàyyi la woon ma nga ca dëkk bu tedd ba di doxoobee nekk foofu ca Linguère ñu ngi koy ziar di ñaan yàlla mu xippee ci àjjana gën a kawe Serigne Njaga Njaay doom jëla ak Ousmane Soosa Njaay doom jëla Soosa Njaay tamit turandoo ba nekk ca Njaxaraaj ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaan ak kenn du jàmm Cerno Alassane Mbaye taalibe Cerno Aliou Thiam waaliyu kaamil bi nekk ca war a soogi ziar nañ ko Alaaji Maktar Dramé xalif général bu Dramé ni ñu ngi koy ñaan ak euh, kenn du jàmm ak fan bu gudd ak bu ànd ak wér Alaaji Banfa Karamaxo Saanaxo xalif général bu Touba Saanaxo njabootu Alaaji Cheikh Baba Jongo fils Alaaji Baba Jongo dong mu xadam la ci Seydi Hadji Malick ci quartier Mbodiène Serigne Ahmadou imam Mansour Sarr professeur arabe nekk foofu ca yëmbal yàlla ko yàlla defal jàmm Cheikh Baye Seydi bu Fall xalif la ci njabootu euh, foofu nga xam ne nag moom mooy ca Koosi la famille de Serigne Bakary xalif maam Cheikh Amadou Bamba ardo yow àlla suren cheikh taay taala bu yeen yaay xalif luubulu moom tamit kër Momar Sarr yow àlla solen Serigne Mouhamadou Moustapha Sow waali kaamil xalif moom Abdoulaye Sow ca Dagana Serigne Jiri Samba marabu chef religieux ca carte Samba Lobé alaaji Seydou Sow ziar ko alaaji Seydou Nourou ba nekk ca Patagalo di waali kaamil alaaji Baba Lamine Niass représentant la famille de Baye Niass fii ci Dakar cheikh Mahi Cissé bu alaaji Aliou Cissé porte parole bu Medina Baye ñu ngi nuyu sax suñu yaay foofu dinañ ci ñëw ci kanam dinañ ci ñëw Serigne Bassirou Gadiaga ci Dinguiraal xalifu Serigne Matar Gadiaga am nañ ko Serigne Cheikh Ridial euh, Seck Gëm Bamba euh, nekk ci Touba Daara Khoudous ak njabootu njaxate njaxate yi nekk ci li ma waxoon Serigne Idrissa euh, Ndiath di nekk ci Medina Ndiath bi moom tamit ñu ngi koy ñaanal jàmm di Thierno Idriss Ndiath euh, Ndiath nekk ci Medina Ndiath bi Cheikh Mamour Insa Diop la marabout de la jeunesse moom tamit taalibe baay boobu yàlla ko yàlla defal jàmm euh, di nuyu tamit njabootu Alaaji Mbacke Tandian Chérif euh, Abdoul Moutalib Tidiane sëñ la ci Amit Tidiane ci Pikine ziar nañ ko sëñ Hadi Cissé Touré nañ ko njabootu Serigne Mouhamadou Kabir Sarr bi nga xam ne nag ña nga ci gën ginnaaw ki fa toog nag ci jal bi di Alaaji Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane Sarr yal na yàlla gudda fanam imam Sarr bi nekkoon ci a kawe docteur Sarr doom ji yaru na euh, xam na diine jàng alxuraan topp tànku baayam moom docteur Mbacke Sarr yàlla ko yàlla defal jàmm Serigne Abdoulaye Ndiaye Khalil nag moom mooy xalifu baayam Serigne Jim Ndiaye nekk ca Kaymor ñu ñuy tamit ki nga xam ne mooy Serigne Abdoul Aziz Diaw nekk ca Thiès mbokk yi kilifa diine yal na leen yàlla sàmm sëriñ euh, diw nga xam ne mooy Alaaji euh, Yadma Der yàlla ko yàlla defal jàmm taalibe sëñ Babacar bi nga xam ne sëñ Babacar si riban taala anhu moo jël wër di jox ci loxom mu ci jaamu yàlla dimbali doomu aadama di bay di dundee yàlla yàlla defal jàmm mbokk yi nag wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm bu baax waa tubaa ak ña nga xam ne ñoo ñu dalal démb ci ëtt bi nga xam ne mooy ëtt sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalifa général euh, délégation Kouthia bi yëpp dem fa démb ci Touba euh, demoon euh, yóbbi seen addiya ak sukkaru koor ci njaboot gi sëñ muntaxaa ak ñu nekk ca ginnaawam ñëpp daal di ñuy teeru wax dëgg yàlla ñaanal ñu yeew yi ñu dem kon dañuy delloo njukkal ñi nga xam ne ñoo nekk ca. Euh, cabinet ba suñ ne cabinet nag mooy ñi nga xam ne ñoo wër sëñ bi ak sëñ bi ci boppam ndax wax dëgg yàlla euh, suñu ñëw boobu daal euh, santal lañ ci def mooy wane ne wax dëgg yàlla Sénégal daal foo dem rek am fa ay soppe démb groupe Kouthia Show dem nañu ba seeti sëriñ bi seeti njaboot gi waaye daal kenn jéppiwuñu waaw dugguñu fi nga xam ne fa la ñuy dugal kilifa yi ñun tamit ñu dangu doon ay taalibe toppante ko kon niñ ko waxee rek waaye ñu ngi ñaan liñ fa ñaan yëpp ñun ñëpp ñu bokk ko sëñ bi nag ñaanal na waa TFM ñaanal groupe Kouthia Show ñaanal réew mi ñaanal ñun ñu ñaan yàlla loolu yàlla na ko yàlla def ñu gaaw koo gis ci jàmm ak salaam ndax sëñ Mountakha jàmm rek lay ñaanal nit mbokk yi xarit sëñ Mountakha ngi ni mooy kan Madické Niang ñu dem seeti ko maa ngi leen di nuyu xale yi démb damay génn rek ngeen egsi loolu laa dégg damay demee ba egsi nag kër ga lañ dama nag délégation xale yi Kouthia Show yi dañu demoon dem seeti Sëriñ Mountakha ma ne waroon naa leen fa fekk nag <laughs> su ma fa fekkoon sama ñaareelu enveloppe bi yéen laa kay jax su ko defee ngeen gën a yokk seen addiya jëmale ko ci sëñ bi wax dëgg yàlla maa ngi kontaan nag waaye fan yii démb ak tey ni ma gisee ne politique bi da ko doxee nag wax dëgg yàlla mu ngi commencé nag ralentir parce que réew mi Sénégal dañu war a jàngat ci li nga xam ne moo commencé xew ci Afrique xoolal Banjul bii nga xam ne Adama Baro tey 54 députés nga jël ci élection ba toj fi fii toj ko lépp na rajax nga gañe waaye bi élection député yi ñooy wax dëgg yàlla nga lajj ci mooy wane réew yi léegi xale yi ci nekk nag dañoo yeew parce que tamit nekk président tamit bu la ko yàlla dafee nga nekk ci ab réew jiite ko ñi nga xam ne dañuy jiite bu ñu kontaanee dañu lay dollil. bu ñu kontaanee dañuy am li nga xam ne mooy sympathie si sa diggante ak ñoom phénomène bii am Gambie tey nga xam ne kii nga xam ne mooy Daabo am na fukki député ak juróom ki nga xam ne moom mooy ak euh, Baro am euh, ñaar fukki député yu manqué benn ak ay topp toppal yoo xam ne kenn ku nekk bu ñu tasaaroo ñoom bu ñu àndee jox Daabo li nga xam ne mooy seen bopp kon Daabo mooy doon euh, premier ministre bu Gambie premier ministre bu Gambie lay doon yi kon nag réew mi comme que dañuy dem ci législative yoo xam ne tamit wax dëgg yàlla dañuy ñaan réew mi mu ànd ak dal parce que le président Macky Sall li mu bëgg mooy fexe ba ñi nga xam ne ñoom lay ñoom ñoom la ngemb ñooñu daan waaye ñi nga xam ne ñoom la ñuy bëri tamit dañuy bëgg daan kon nañ ko def nag ci li nga xam ne moom mooy fair play ak sincérité man nag li ma sëñ bi waxoon rek dem ngeen tuuba <laughs> gis ngeen ko gis ngeen jotaay bi xam ngeen ne kilifa bi bu la waxee kàddu mu dugg sa nopp rek suñu taxaw boo toogee mu sa xam ne wax dëgg yàlla yaa ngi toog nitu yàlla yaa ngi toog ak nitu yàlla dëgg moo ma xool ba ma doy ko mu ne ma am na lu dàq politique loolu sëñ Touba dental li may wax ak yéen ni di xeltu di leen wax ngeen di dégg te lu ma leen wax rek ngeen gis ka c'est parce que sëñ Touba am na lu mu def ci man te sëñ xaa wax na ko léegi nag réew mi dafa nekk réew moo xam ne boo waxee lu bëri ñu ne na da ngay ut poste ñun ut nañu poste ñu bëri comprendre ñu ne situation bi ma taxawee moom mooy fexe ba sénégalais yeew mën a dund te duñ tàllal seen loxo duñ ñaan kenn loolu mun naa am ci kaw nag nga gëm ne réew boo ci nekkee da nga war a am ay àq ak yelleef suñ mu taxaa yàlla fi yàgg te wér ñu koy ñaanal jàmm waaye tamit président Macky Sall tamit gaaw ci li nga xam ne mooy échéance yu gaaw yi parce que njëg bi yokk ni di wàññi gaz bi manqué yooyu yëpp ay politique la rek yoo xam ne buñ ko defee nank waxtaane ko suñu biir Sénégal mën naa deqale ci lu bëri ni sport bi taalee Sénégal noonu la politique bi noonu la noonu la économie war a taalee Sénégal yaakaar naa ne yebaate weesuul barki démb bi mu fiy mujj ci àjjuma ne leen way bii na ngeen ko teg ci suuf parce que man yoruma marto bay toj bay rajax fenn li ma sëñ bi wax ba ma ko waxee ba tey déggu leen ma ma woote politique seen way caaxaan yi na ngeen ko mujj tey ma koy dégg parce que bu dul dara tamit dama toog ak sëñ Muntaxa muy kilifa wax ma su may ñëwti di wax ak yéen ci Kouthia Show bi na ngeen am yar ak teggin te bañ wax ne fii toj na fii na rajax ndax tojuma ma yaa ngi rëq المقام Sous l'égide et la bénédiction du Khalif général de Medina Baye et de l'imam de la grande mosquée Cheikh Ahmed Tidiane Ali Sissé, Euh, association Safa wala euh, Marwa serait très heureuse de vous compter parmi ses invités d'honneur à la euh, conférence religieuse qu'il organise le 23 avril 2022 à la résidence des hôtes këru gan yi à partir de 9h lay tàmbali thème ba nag ñu ngi doon thème conférence ba les droits et devoirs de la femme dans le foyer conjugal votre soutien nag ñu ngi wax nag képp koo xam ne nag bés bi intéressé na na nga fexe ba ñëw ci bés bi le 23 avril ñu ngi koy amee ci kër këru teeru gan yi waxtaan bi nag ñu wax euh, yelleef ak aqu jigéen ci biir sëy euh, ci biir sëyam maanaam devoiram ak li nga xam ne moom la war a taxawee ci biir sëyam ñu koy nag euh, waxtaanee foofu di bës bu am solo boo xam ne nag suñu yaay ajaratu Fatou Samb moom moo xam ne nag moom moo jiite association boobu moo ñu jox communiqué bi di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram di association Safa wal Marwa bi nga xam ne moo nekk foofu ca Kaolack mbokk yi Fatoumata Diagne doomu euh, Gawsu Diagne ak Siraba jarbaatu Silebu de dëkk Ngor village moo réer ak ay mbok mbokkam depuis six jours ku ko gis na nga woote 77 883 26 43 foto mu ngi noonu Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène porte-parole de la Hadra Ndiéguène vous invite à leur laylatul xadri le jeudi 28 avril 2022 ci Dakar Gueule Tapée immeuble Diez ndax ngeen njaboot gi yëpp nag at bu nekk koy defee moo tax ñu ngi ñaanal xalif bi yàlla defal ko fan bu gudd ak wér gu waaye tamit Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène moom tamit porte-parole bi yàlla yàlla dëgëral taxawaayam may ko tamit jàmm may mu yàgg fi loolu te wér nag ndax ne mooy porte-parole de la Hadra Ndiéguène yàlla yàlla defal fan bu gudd njaboot gi yëpp nag mbokk yi ñuy am mbégte ak contentement di ànd élection Gambie ah Adama Barrow moo gagné ca élection présidentielle la waaye kii nga xam ne mooy Daabo moom am na fukki député ak juróom toutes mes <laughs> waaw Daabo am na fukki député ak juróom kii nga xam ne mooy Adama Barrow am ñaar fukki député yu manqué benn am ñeneen ñoo xam ne dañoo am benn benn benn ak ñoo xam ne am nañ ci ñeent ñooñu bu ñu àndeek Daabo ah gouvernement boobu Daabo moo koy jiite. Adama baro président rek lay doon waaye Dabo Mbowa mooy doxal te nag xam naa ne ñaar ñooñu nag seen doxalan ci biir réew ma dana nekk lu doy waar. wala ilaa bu fekkee ne nag Barrow dafa dem jëliñ benn benn yee boole leen mooy amaat doole waaye fu mu ne nii baro bu tëddee du nelaw ndax Dabo nee na dana dem waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne ay benn benn ñu am mu nekk premier ministre doxal Gàmbi ah Adama Barrow daal di toog ne faaj moom Barrow mu doxal ñu seeti Barrow. asalaamaaleykum alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin yàlla moo ñëw waxoon naa leen ni bu njëkk bi am na lu mu demee woon waaye yàlla moo àttee naña <laughs> tiatia mare lii ko waxoon du ko gëm ne woon naa ne bu affaire yi jaayee yoon because normal because normal mu jub xocc ah, bi waaye yow ba tey sax li ñu wax ne moom laa am fukki ak juróomi yeey eh, man des na leer sama bopp waaye mu ngi xam ne moom mu xam ne ni mu leeree nii ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw dañuy jóg parce ni tey lijjanti Gambia tey moom kay gañe na ñun nangu nañ ko ak xol bu métti nag xëy sibóoru nañu fi jàmman nañ fi yaram buy métti xol bu neexul ndax mboo mbooloo bi génn yëpp ngeen gis ko biir Gambie xamoon ngeen ne man duma moromu xale bi léegi nag soo leen buggee soo moom mu jiite man ma doxal ñi nga xam ne dañu am benn benn nañu topp suma ginnaaw ngeen xam paa bu mun a liggéey paa bu yàkkamti ñamal leen moom loo xam ne tey bu ko Gambie gisee ñu ne hey Barrow wàccal ga xam nga soo moom bu fekkee ne li may wax nii dama bëgg waa Gambie ñu def ko moom am na ñaar fukk yu manqué benn man am naa fukk juróom man kese ñeneen ñi nga xam ne nekk na benn benn bu ñu ñëwee ci man ñu ànd def gouvernement moom mu nekk di wax ñun ñooy doxal doxal Gambie ba mu jub xota moom ci boppam sax ñun ñoo koy doxal ndax ñun ñooy patron hey moom daf ñu jiite rek ñu koy yónni hey bu waree dem Sénégal bi cause mu xëccoo sax mu dem buy dem France moo xam waaye ñun ñooy nekkaat ci dëkk bi ñooy doxal. Eh, gis nga yàlla hey dafay atte lii moo nekk loo xam ne dafa leer naña te su ma ko lijjantee sax fukk ak juróomi boo demee man moom moo am fukk juróom ma am ñaar fukk yu manqué benn waaye comme que ci weeru koor la ñu nekk xay du ma toppa nit ba mu sas waaye tey dama am mbégte bu sori si man ndax waa Gambie gedduñu ma wonuñu ne hey li ñu leen ak li ñu defoon ak li ñu gis tey wuute na الحبيب سيدنا محمد رحمن الرحيم ملك الحدوث السلام المؤمن محيمن العزيز الجبار المتكبر bokk yi am nañu mbégte bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di gërëm kenn ku nekk le président de l'alliance sénégalaise pour le consommé local Serigne Djili Samb et son coordinateur de la région de Louga monsieur euh, Mbodj Fall vous annonce que la journée de consommé local prévue à luga président euh, ci dëkk bi nga xam ne nag mooy Ndigile euh, Ndigile foofu nag ca Louga la mercredi le 25 mai lay am le coordonnateur appelle tout la population de luga les autorités les directeurs yi nga xam ne nag ñoo nekk ci sociétés yi 300 femmes et transformatrices à venir assister à l'exposition et la présentation des produits locaux sans oublier monsieur le maire de la commune de Ndingler di Djibilo nee na nag moom ñi nga xam ne ñoo nekk ci alliance bi nañu ñëw laaju leen dara ñu toog waaye tamit Serigne Djili Samb mi nga xam ne mooy président bi ñu ngi koy ñaanal yàlla dafa ko jàmm bi mu nekkee ci boppu euh, alliance bi ba tey ay euh, amélioration lay def jëmale ci li nga xam ne moom mooy consommé local moom tamit mu ngi tàllal euh, loxo euh, gouvernement état Sénégal ñu daal di gën a jàppale alliance sénégalaise pour le consommé local bi nga xam ne nag ñu ngi koy commencé tasaare ci région yëpp ba kenn ku nekk yaa ngi ci gis sa bopp doole gi nag mooy état daal di leen nangul accompagner leen ci li nga xam ne ci lañ jëm man mii di wax ak yéen nag man maa yor communication wu alliance bi di ci gërëm képp koo xam ne nag euh, yaa ngi ci biir alliance bi mbokk yi joyeux anniversaire à Imam Malick longue vie à Imam Malik longue vie santé et bonheur à Imam euh, Malik moom ci boppam nag tey la anniversaire mu ngi noonu yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu moom Imam Malik joyeux anniversaire à Awa Cheikh euh, Bathily madame Seck sama xarit sama doomu ndey dundal wéeral amal jàmm de la part de Ndeye Faye moo lay ñaanal kenn dul jàmm ak anniversaire bu neex yow Awa euh, Cheikh Bathily joyeux anniversaire à Mamadou Diop di nice fils de Baye Diop depuis Ngor longue vie santé la part Euh, ton père Mamadou euh, de ton père Baye Diop waaye doomam bi di Mamadou Naïs Diop ñu koy ñaaral tamit anniversaire bu neex Ibrahima Cissé adjoint maire de Rufisque Ouest et sa femme madame le maire Marie Ndoye madame Cissé sage femme d'état ñoom ñëpp ñu leen di nuyu tamit dédicace à Moustapha Kama président du mouvement Touba moo ñu ñor mbokk yi. dañuy gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon euh, démb ci Touba bi di gërëm tamit ñi nga xam ne mooy sëñ Mor sëñ Mam Mor. ak sëñ Muntaxa mi nga xam ne bu ñu jotee tey ginnaaw yàlla caat mi nga xam ne ma nga dëkk ca Bongare euh, si suñu mbabat gis sëñ bi mu jaar ci loxoom waaye mun taxaa euh, turandoo sëñ bi ak staff bi fa nekk yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal tamit euh, kendalu jàmm ñaanal leen tamit jàmm di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla defal ko jàmm mu yàgg fi loolu ci biir biir vidéo bi bi kii toog sëñ bi ne ko sëñ ma sàmba ngi nii Euh, moo na ci tele bi euh, di bégal gaa yi foofu ci Dakar nag waaye nag moom <laughs> tooñkat la sëñ bi ak mbégteem ba ak tontum bu neex bi ne ko mbégteem boobu muy joxe ak bégal boobu na ci waa Touba ëppale te nañu yokk mbégte bi wàññi caaxaan bi <laughs> ndeysaan sëñ bi nee day yokk day yokk mbégte bi waaw nee na mbégte bi ngeen am ci émission Kouthia bi sëñ mu taxaan ne da ko yokk te na ci Touba ëppale <laughs> danañ indiwaat vidéo ba ngeen teg ko dégg yokk soo ma ngeen dégg ko nee na dana yokk mbégte bi ñëpp di bég waaye na ci waa Touba ëppale loolu waaliw kaamil rek moo koy ñaam boo demee si sëñ sëñ sëñ man suuf si xalif général kulu Tidiane moo ko jëkkee Abou Bilal phénomène de l'année man su may déglu Abou Bilal du la may lu muy def damay xool wax ca ak lam ciy wax ak nam koy defee sëñ Babacar Mansour si xalif général kulu yàlla ko yàlla defal jàmm moom moo moo moo moo moo ci teg loxoom ne la phénomène de l'année saa yu demee délégation jóge fii dem di ko seeti pour gàmm mu leen an sama xarit bi sama soppe bi saay-saay ba alaaji abu bilaal <laughs> ndeysaan wax dëgg yàlla mag ñi ñoo ma bëgg mag ñi ñoo ma bëgg lu koy waral nag mooy eh, war ma ba ngi leen di jox ak bañ leen a nit ñi di leen fàtte nga leen di nga leen di dundalaat di leen bëggal nag jiital leen ba pare nag léegi loo ci teg rek ñoom ñu lay ñu lay teg bët boo ci dem nag ci njaboot goo ci dem loolu ngay dégg boo demee ci maam bàyyi Laay fii ci Cambérène njaboot gi chaque jour ñu yónnee ay seede ci ndey fay bii mu ñëw ci ñun waaw ñuñ ko tàmbalee nag Touba noonu nañ ko ñam nañ ko mu neex duñ ko bàyyi weer bu nekk dinañ dem gane ji xalif général yendu fa waaw te ñun nag suñu gane dafa neex ndax dañuy yóbbu suñu ay ay teraanga suñu ay xar suñu lépp na ñuy yóbbu ndeysaan mu sëñ Muntaxa démb dem na ba làmb benn enveloppe bu ma ko jox fekk ci diggante am ku dugg te enveloppe bu ñu ngi ci bindoon vingt millions waaye ki dox sama diggante ak vingt millions yi kooku moom xam naa ne euh, maa ngi koy ñëw ñaar rakk léegi kon mbokk yi ah, Wengal Mbaye nee na France yëngu na de ya am Gambie ba député ya nga xam ne ñoo nekk ca Gambie jegante opposition ba xam nga la moo xam ca France Macron ci boppam ak jigéen ji gën a bañ ku ñuul ku bon ku raciste kooku mooy deuxième ñoom ñaar ñooy ànd dem deuxième tour te bu fekkee ne am na ñaar war a ñett ñu jàppale jigéen ju bon gii di Marie la Pen boo moytu sénégalais yi nekk France yëpp da ngay xëy rek gis nañ AIBD kon dem seeti Wengal mbaay message am. waaw mais gars yi na ngeen def mais est-ce que xam na tey caaxaan bi du bari de parce que man weekend bi ma e eh, mere naa leen de ngeen dem seeti seen mu di ma fi bàyyi xanaa man nekkatuma seen père ah mais da ngeen yoxosu ah mais xam nga lu tax seen délégation bi géey bi ngeen demee amu leen géwalu groupe da ngeen waroon jiital koo xam ne mooy doon bu bu bëkk bi waxee ba pare ba daanal waaye géwalu ku caa taxaw wax mais da ngeen ma soofantal heure boobu man nag nelaw ma nag mais france gi toj de Macron moo jël P waaye Marine Le Pen moo jël 2 de la ñu rawantee bëriwul de Macron nag boo ko xoolee ci taxawaayam nekkul koo xam ne ku soxor la ndax da di xale bi mu feree yàggul koo xam ne ku du monde France bu mujj bi avant bi ñu mujj gagné bi ko France gagné bokkoon na ci xale yi daw di topp oto bi moo ko wax de kon xale la goos la garçon président garçon président xale bu ndaw waa mais xam nga lu garaaw ndaw si nga xam ne moo nekk ci ginnaawam jege ko di foon bakkanam ci pale bi war a dugg te kooku buñ ko bàyyee taraftal ay nit mu dugg ci pale bi kooku moo taxaw ne carrément j'aime pas les noirs ñu ne ko pourquoi mu ne particulièrement les sénégalais ñu ne ko lu mu ne il me dérange waaye tubaab bu xonk tur dëkk ci réewam ne ñu fa nekk même bu ñu amee nationalité moom bu yéegaatee nationalité dañu koy dindi waaye kooku buñ ko wateel waaye e eh, gars yi ñaan leen de kenn ku nekk Sénégal sa mbokk nga bitim réew te nañ waxante dëgg nag gars yi ay France sénégalais yi nag ñoo fa ëpp ah waaye nañu waxante dëgg waaye tamit dëkku jàmbar waaye tamit ñoo fa ëpp de mais ñoo ko liggéey parce que suñu ay baay ñoo fa xeexoon ah ancien combattant yi mais la France sans sans l'Afrique et le Sénégal la France n'est rien je te ah. parce que man suma papa ancien combattant je gère les choses xam naa nu mu demee suñu papa yu bëri des nañu foofu ci guerre France bi ah parce que ñoom dañu jaay seen bakkan pour France mun a libéré waa ah. kon bu ñu fa neexee ne juux bu ñu neexee toog de waaye ndaw si bëggul loolu e paa yi ñaan leen booy ñaan leen de parce que bu aali ñëwee nday ñëw Moodu ñëw Jean ñëw ñibbisi mais kër yi day fees ah non day fees dëkk bi commencé na xat de mais Sénégal mais gars yi eh eh yéen seetlu leen benn affaire temps yi mais Sénégal passé nañ 14 millions de. mais ñu ngi ci 18 ñun waaye ñun dañuy neefare yàlla <laughs> mais affaire dafa gaaw a sekki 14 millions d' habitants 2000 la woon ah mais ñu ngi ci 18 millions ci diggante 2000 ak 2022. Eh, gaa yi ñuy ngénte de <laughs> gaa yi caaxaanuñu ah <laughs> waaye yow waaw mais loolu lu mu dama ah. jàpp leen benn affaire mooy Marie Le Pen bu toogee ñu ñëppay dañu sonn de parce que tubaab bi nee na carrément ku ñuul moom du wax ak moom rawatina Sénégal mooy ba pare nag mu am càmminam bu góor ku soxor ku ne ko man sénégalais yi ñoo tax ma bëgg nekk candidat France ñu ne ko la mu ne dañoo bari bëri wax ñeme toogaay mbedd te ñuy nef mooy tubaab bi borom leel bu xob bi fotom ngi nii fotom ngi nii xool leen ko kii nit ku ñuule lay bañ a gis ñoom ñaar nag ñooy nar a ànd xeex ak Macron gars yi ñaan leen de. gars yi ñaan leen de waaw. jëwlu Sénégal Paola Ndiol Mbaye. eh Paola Ndiol Mbaye. jëwlu Sénégal Paola Ndiol Mbaye. eh Paola Ndiol Mbaye. jëwlu Sénégal Paola Ndiol Mbaye. eh Paola Ndiol Mbaye. jëwlu Sénégal Paola Ndiol Mbaye. eh Paola Ndiol Mbaye. Séeri Mati. waaye xool eh. mu tudd kooku de. am nañu mbégte Mati bu la am daloo naqari ndax eh, yow sa ñaw gaaw na eh, <laughs> fay bi yomb na te doo taxaw kenn waaye nag eh, keneen koo xam ne nag yaa xool noo koy defee de toutes les daal bi nga gisule lamin Mati nga gis bu ma bu mati moom day gore rek xool ndax da ngay ñëw am waaye moom mati mati ak ay rita bokk fi bàyyee da nga dem ci lu ñagas mbokk yi ñu nga am mbégte ànd de feu Mouhamadou Bachir Samb euh, su la présidence de Oustaz Ahmad Tiendou Samb responsable des Daara Siratal euh, Moustahim de Louga le Daara Siratal Moustahim de euh, Djemène Diémène euh, organise une conférence de jeu le 16 euh, avril euh, au quartier monta quartier montagne parrain ba nag di monsieur Khadim Sall président du mouvement Horizon 2035 2035 moom la ñu bàyyile bés boobu nga xam ne nag ma ngay am foofu ca Louga ñu ñaan ñëpp teew ndax daayira bi nga bi nga xam ne moom mooy daara siratal mustaqim de Ndiémène ñoom daal seen parrain moom mooy monsieur Khadim Sall borom Avicenne président du mouvement Horizon 2035 mbokk yi dañuy dem débat bi ñu fàttali leen ne Vieux Diouf moo nekk bi ak Laaji Daaru Gueye moo nekk ci son bi ñu dem ci débat bi nga xam ne nag ñu ngi jëm ci diggante euh, association des maires du Sénégal ak réel bi nga xam ne nag moom la gars yi créé démb di ñoom Sonko pour mën a taxawee euh, taxawaay boo xam ne duñu bokk ci association des maire yooyu nga xam ne ñëpp ay APR lañu ñoom am nañ seen association des maires opposants ñaari association yooyu ci benn réew nan la nar a doxee Ndeye Faye Khady ak Omar Réew ñooy réew tey

asalaamaaleykum mbokk yi xarit ñuy seetaan ñu ngi di ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di béggee képp kamte rek yaa ñuy seetaan euh, lundi nag euh, tey rek ñu ñëw euh, di béggee ñëpp di sant di gërëm képp kamte rek yaa ñuy seetaan waaye di gërëm waa Touba Mbacke bi nga xam te ne fa lañ demoon seeti al muntaxaa di ko ñaanal yàgg fi loolu te ànd ak wér ak bépp kilifa diine kilifa aada démb rek gis nañ teranga bu bi nga ne waa équipe Kouthia Show defal nañ ñu ko di ñaan rek lépp lu ñu fa ñaan yal na ko yàlla nangu di nuyu ahlu bayti rasulullah Mamadou Maxtar la jiiti ko kilifa diine kilifa ma lay nuyu baax di la Omar Rew. nuyoo da ah, ngeen def. bokk ak Ndeye Faye. Hmm, cousin cousin. Ah, kii xanaa raqu pataal. mooy ñi ma gis tey bokkul ñi doon toog fii de. ñi doon toog fii moom ay nit nañu waaye ñi ma gis fii du ay nit de <laughs> man gunóor laa gis ak melentaan <laughs> gunóor ak melentaan. bëgg suukar ak mërantaan ñaaw ngeen seen weer yii yéen yii da di def affaire dorog jaaykatu yamba yi ngeen doon jaaxle ngeen yamba amutul Casamance de grossiste yi moo di ngeen doon lu xale yi bay ngeen jënd ko yéen ci loolu rek geen di dox jaay leen gejj jaayu leen cuub ñaw leen kon baax yaay jënd yamba tasaare rek ngeen nekkee xoolal seen biir jaaykatu yamba yi <laughs> ana yamba bi <laughs> toogal. amoon nuyoo. fay naa leen pare naa looy toog rek yàlla ak teg yow. ok eh, yaay Fall ma lay nuyu bu baax a baax di la wax sa tunique bi rafet na sañse bi rafet na. tey bu baax a baax di wax nag tunique bi rek tey moom caat diwaan couture moo fi jaar. bon na caat borom diwaan couture nekk foofu ca marché Zing di xale bu am jom di fa def yu baax moom tamit day ñaw unisexe di def ay prêt à porter yu baax. rek di ngeen ko gis yu baax a baax caat maa lay gërëm kontaan naa ci ñaw bi vraiment maa <laughs> maa ngi gërëmaat ñëpp di nuyu ñëpp nag avant dañuy santaat rek yàlla di julliwaat ci yonente bi di wax euh, kontaan nañ ci kontaan nañ trop trop trop trop ci démb dalal bi ñu dalal biir Touba dem gis almuntaha borom mbégte mi dañuy am contentement di gërëm ki nga xamante ne nag moo dox loolu muy caat jaarale ko nag ci muntaha mu ndaw mi nga xamante ne sët la ci ci ci sëriñ bi doon nañu yaatal ñu ak sëñ Maam Moor bi fa nekkoon démb mhm. ñu yaatal ñu wax dëgg yàlla jotal ñu lool lool lool ci sëñ bi ndax ku la wanaleeg sëñ bi rek kooku xam nga ne bëgg na nga nga nga jëm ca kanam kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax yàlla yàggal seen taxawaay sëñ taxaa yàlla na yàlla yàggal taxawaayam yàlla na ko fi yàlla bàyyi muy gën di ñu euh, di yokk mbégte mi rek di gën duñu taxaw di gën duñu dooleel vraiment sa nekkin fii am na njëriñ lool lool lool sëñ bi yàgg fi lool Mbàkke te weer di gërëmaat ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi rek son excellence monsieur le président Macky Sall madame la première dame ak euh, képp koo xamante ne rek yaa ngi sopp yaay Fall maa ngi lay nuyu di la ziar na réew mi am jàmm rek amin amin yaa rabbi yaay Fall naka la ñuy amee invité mu jug bàyyi ñu fi demee ah? que invité boo xamante dama doon léegu léegu pour xool ñi ma jàkkaarloo ay nit lañu war a <laughs> yéen la koy jëkkati seen jëkkër yi laa doon woo ñu ne ma yéen na ñu ngi sant yàlla koo leen mere ba ko nii <laughs> bi nuroo génn fas <laughs> ndey mm-hmm. ndey abaya nga de waaw abaya ku la abbaaya ku abal sama rakk biir jub jëlaaleel ma samay Gàkku sama rakk ju baax jooju moo fi jaar jëla ma samay daal jaar na fu bon su danga soxor yow oma réew ndey ñëw nañ ma sa savanel sëriñ Saliou ma samay daal Amad doo bàyyi ma poser question waaw yow AMS euh, la gisoon muy euh, association des maire du Sénégal mhm. euh, démb si dimanche bi nag gis nañ beneen association des maires du Sénégal ñu tuddee seen bopp réseau réseau des élus mhm. ana benn gis-gis nga nga ci am euh, ndax du rek euh, nasaxal bu njëkk ba ndax gis nañ boobu benn bokk yaakaar la woon mais yeewi askan wi ñoo ëpp euh, ci maire yi nga xamante ne moom lañ fal bu yàggul. dëgg yooyu ay diil la rek bu bu bu waa yeewi bi beroo. Mhm. ñee kenn kan moo fay des yow Dakar bokkul. waaw Ziguinchor bokkul. Mhm. Kaolack bokkul. Guédiawaye bokkul. Eh, Kaolack bokkul ak yeneen yoo xam ne buñ ko compté tey ñii li ñuy dese du doon dara du doon association fan si club lay doon fan si club des maires de Macky <laughs> fan si club waaye ah, ah, ah, association bi association lay nekk wala mu nekk ami de Macky ñii waaye association mooy lu bëri waaye xam nga ne waa yeewu ñooy ponkal yi ñooy loolu laa gis man te loolu moo am ndey. ok da nga gis sa gis-gis ku nekk. ku gis leneen lu dul loolu. ma ma war na lu ñaaw waaw. ñun dañoo woor ñu lu ñaaw tamit nag. ni ay xeex yaay fal est-ce que rek euh, du daaneel association des maire du Sénégal bi nga xam te ne waa benn bokk yaakaar loon gis nañ rek bu bees bi am te euh, def nañ ko démb euh, les élus lañ ko tuddee réseau des élus mu nekk rek association ba nga xamante ne rek maanaam waaye yeewi askan wi ñoo ci ëpp. lu ñu mënti def rek mënuñoo daaneel gouvernement son excellence monsieur le président Macky Sall nañu dem ànd ak ku leen neex. mais législative yi dinañ leen lajj lajj yu metti da wax lu la neex. waxuma waxuma ça n'existe pas. ana laa bëgg yow nga tëj sa gémmiñ su may wax dégg nga li ma la wax. yow xam nga fan lañ xam lañuy mm. yoo xamante ne. bàcc leen ne dinañ respecté son excellence na bu yàgg. législative tiit tuuti ndax euh, maire yi gis nañ rek. ndey loolu moo am. ñun amuñu tiitukaay ñu tiituñu ragal pour la tiit dañoo tiit de ñun majorité di lu ñuy dox di tiit. ñun ñoo am majorité lu ñuy dox di tiit. mais euh, kii yi ngeen am majorité maanaam dëkk yi nga xam te ne. Ah, moo ëpp moo tekki samay wee mën a jàkkaarloo ak yéen. ndey wax ko tiit li ngay wax neex li ngay wax dafa am solo. majorité boobu ngay wax yéen a ko am maanaam dëkk yi gën a mag Sénégal yi nga xam te ne ñoo ëpp doole yëpp waaye yow askan wi ñoo fa gañe loolu tamit ada est-ce que du wane rek njeexatalu nguur njeexantalu nguur mais gis nga nguur gu jeex moom yàlla rek ko xam nguur gu war a jeex ak nguur gu war a euh, continuer loolu moom ci loxol yàlla la nekk mais gis mais ñi ñëpp fi daanu ñëpp nii la commencé woon déggoo ma ne fi ne dégg xam nga kañ ngeen di euh, xam ndax euh, jeexal na ñoom jeexaluñu législative yi incha allahu rabbi su rek ci ngeen di xamee suñu euh, doole son excellence monsieur le président Macky Sall moom foo mu ne woon ma nga fa ba léegi de ñoom day bàyyi la ñuy manifester di kii dem ca làmb jay bàkku da jóge fay bàkkoo ko gën déglu kii moom mooy ah, ma président Macky mi ngi liggéey fa dëgg fa yàlla ah bañ a liggéey da nga jeexal euh, li ma la bëgg xamal mooy <laughs> ndey ma dama joxoon rek pour wane yow corrompu nga da ngay lekk guerre. <laughs> loolu laa bëggoon wan Sénégal loolu moo <laughs> kii dafay lekk ger. kon kii journaliste ko moom lu tax mu jël xaalis bi. café de dañoo dem Touba si bi wàññeeku ma kii nii la mel kii dafay lekk ger nii laa bëggoon ko déedéet loolu rek laa bëggoon. yow sa invitation moom dinañ ko xoolaat léegi ba xam dinañ ci ñëwoon déet. gannaaw dañ lay invité ba pare di ko ñu lay korom pour ngay nangu. 1000 francs mën nañ ma la bu yóbbante démb ni ma si plateau bi dinaa la ko jox mi ngi nii de kenn du ba takkal man moom kenn ah déedéet. dama yaakaar da laa jox na mu desoon yàlla tere lii 1000 a ah, ah yii ah, loolu moom sama sama ñëw fi am mbégte ànd ak yéen di gërëm képp koo xam ne nag yaa ngi ñuy seetaan rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel di am mbégte ci képp koo xam ne tamit wax dëgg yàlla waxtu bi yaa ngi ki ne nekkoon ci réalisation bi euh, moo nekkoon nag ca Soba Dream Cosmétique One Xbet ak King Cola King Orange Ananas Citron ak King Fruit Rouge ak Mojitu bi moo leen may seen émission Kouthia am na bu mag am na bu ndaw te neex naa euh, euh, daal ndogo neex naa xëddee tamit waaye nag lii gën a neex mooy ci jamono tànga sénégalais bi nga xam ne mu ngi arrosé wu bu ñu demee ba génn ci koor gi nag moo lay gunge ci say euh, dessert ak euh, sa booru plage yoo yaa xam daal waaye nag euh, ñoom waa King Cola King Rouge wax dëgg yàlla ñu ay jàmbaar lañu mbokk yi dañuy dem nag ci conférence ba nga xam ne ña ngi koy amalee foofu nga xam ne mooy quartier Kër Massar foofu ca biir Kër Massar waxtaanu koor ak oustaz Abou Bilal la marabout du peuple ñu xooli conférence ba tey jigéen ñi nga xam ne ñoo ko waroon fan la mbir di toll kon mbokk yi ñu dem tëj ak li nga xam ne moom mooy Euh, euh, waxtaanu koor ci yor yor koor ak alaaj aw bilal rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi keroog ñu ngi doon waxtaanee fii ci kër Massar li nga xam ne mooy jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci am borom kër yàlla dogalu ko ñu def association mbootaay ba tënk seen bopp pour alaaji abu bilal utal leen ay góor yàlla yoo xam ne am nañu yërmande tey mu ngi ci góor boo ne wax dëgg yàlla da nga ci am soxna te amoo métier te bëggoo foo lan mooy taxawaayam mooy dañuy fexe rek moom mu teel a jël soxna tamit jël responsabilité fexe ba di korkoral bu mun a am lu mu dugal ci njabootam ndax loolu daal moom mooy li nga xam ne mooy sa diggante ci sa jaamu yàlla mu rafet ndax tamit góor du ne yàcc rek jigéen yor ko bu la yàlla boole jigéen joo xam ne am na wërsëg loolu yàlla ko bind mën ngaa dund ci wërsëgam waaye bu mu tee nga nooy ne yàpp na yasar ba nga xam ne ku la gis danaan yaafuus bi util dara bu la ëppalee loolu yàlla koy def jigéen dana ëppale jëkkëram wërsëg jigéen dana dem ba ëppal jëkkëram wërsëg waaye nag wax dëgg yàlla wërsëg boobu tamit mun na am sa borom kër moo tax du tasaaroo kon bul ko ko xeebee war a nga ne kii amul maa koy dimbali boo ko waxee tamit yàlla mën na ëlbati kii situation bi kon tey conférence bi waxtaan bi ki ngeen tànn tey mooy alaaji abou bilal la bu du peuple fas yéene wax ak yéen ci li nga xam ne moom mooy waxtaane koor ci yor yoru koor jigéen gi la ëpp yërmande ci bëgg suturaal borom këram kooku wax fa dëgg yàlla ay yiwam bés bu nekk day mel ne lu ñu koy sotti comme taw lazim bu fekkee ne da gis koo xam ne wax dëgg yàlla caaxaan taxu koo jóg sëy rek tax a jóg bëgg takk soxna rek te jaamu ci yàlla rek ko tax a jóg waaye loo xam jotul ginnaawam te mënul métier day xaarandi kooku jigéen bu ko gis war ngoo koo jàppale ndax xam na ne góor bu am jom la ndax xaarul bu am soog a foo ca ba mu ñàkkee la takk soxna pour tegu ci yoon walay walay li ma leen wax nii nag dama ko dund ci diggante bët gànnaar Israël ak fi nga xam ne moom mooy saxar daana ci soxna lan ay sa wala góor yàlla bu baax bi nekkoon ci dëkk boobu nga xam ne mooy ca Palestine ca Hadra nga xam ne tey boo ko xottee mooy génn Égypte riche am na ndaw si bu wax ne yaa banna yaa banna taaram ci boppam day mel ne làmp bi ma gisee rek daf ma xool ne ma wasakal naa yow da nga ma neex <laughs> ma ne ko man aw dara mu ne ma foo jóge ci arab wasal ma ne ko Sénégal mu ne ma bëgg nga soxna ma ne ko waaw mu ne ma kay kay sama papa may mala mu daal day jël ci lafu sëram dagg ko ne ma teel boo demee nga jox ko sama waajur danañ la may soxla moytuma dóor rek waaw mbooloo mi dama ne ngeen déglu kii bu baax est-ce que yéen a ngi déglu kii boo gisee li tax may jooy c'est parce que li muy wax dafa dugg sama biir xol mais yéen lan moo tax kii buy wax doona jóg baatare ko te lu wér lay wax man loolu moo ma tax a jooy loolu moo laal sama xol parce que kii lu wér lay wax. sëñ bi toogal toogal toogal toogal yow nag yaa fi commencé bëgg miin keroog yaa fi ñëwoon di jooy ba ñu may la fi soxna tey boo ñëwaatee di wax nit ñi dañ ma baatare day mel ne la may wax buñ ma joxul duma ko mën a wax damay woy jigéen ñi rek pour ñu ut góor ñoo xam ne dañu bëgg a am soxna te mënuñu soo amee wërsëg xoolal koo bëgg nga dem wax ko. am na jigéen ñu mel noonu. oustaz dama fi ñëw keroog nga may ma soxna macha allah ma rafetlu ko trop mais dama ñàkk liggéey bëgg liggéey boobu ba léegi may fortaatu ba soxna mooy amuma ma bëgg rek nga ñaanal ma ma am liggéey parce que bëgg naa am liggéey trop wax dëgg yàlla. bu soobee yàlla danga am loo dépensé loolu ne te ñàkk waaye day tax nag nga gën a am jom ca la nga am ndax am na loo xam ne doo ko ñax nit ñi. gor tàmbalal loxo. kooku as gor bu ko defee benn yoon du ko munaat waaye lépp ngi départ ci waxtaan bi waxtaan koor ci yoon yoonu koor waaw maaleykum salaam waaw waaw léegi yow lay. waaw te gis nga kii. Uh-huh. ku ko jàppale dina waaw teg ci 300000. c'est walaay dégg nga sëñ bi nee na may na la terrain ca Diass teg ci 300000 lii mooy solidarité musulmane nii la jigéen war a taxawoo ci kanamu càmminam. wax dëgg yàlla boo gisee góor bu am jom ne la bëgg naa waaye munuma maa ngi seet waaye awuma bëgg naa xam waaye gisuma ku may laaj nga la waay boo ko mënee dimbale dimbale ko te yàlla tax loolu moom mooy solidarité musulmane nañuy dimbalante suñuy biir te am yërmande suñuy biir na góor ñi di dimbale jigéen ñi waaye na jigéen ñi di dimbale góor ñi wala kalba masalan xam nga waxtaan balaa muy am solo nga jël ci sa bopp exemple jigéen ji nga xam ne moom laa takk takkoon ca dëkk ba nga xam ne mooy wasabel di jigéen bu am yërmande maaleykum salaam waaw maa ngi lay fay ah waa ji toog nii de waaw li mu wax sànq ba léegi maa ngi koy déglu mais dafa daw sama yaram dafa sa yaram waaw ça veut dire moom ku bëgg liggéey la waaw dafa bëgg liggéey pour teral soxna soosu nga xam ne. moom nga ko jox. wallay wallay wallay. waaw léegi nag dama ko indil enveloppe bi. waaw wallay ay kayitu kër kayitu kër daal moo fi nekk. nekk. waaw lay gis nga am nga ñaari kër. waaw ma daal di ko baax. te wallay wallay wallay waay wallay wallay wallay. waaw wallay wallay ndeysaan wallay wallay wallay wallay. ku bëgg liggéey la ndeysaan. ndeysaan gëmmal gëmmal. yi am na yoo xam ne kenn du ko yàlla yàlla na lépp baax wallay wallay wallay wallay su ko defee am nga ci kër su ko defee waxtaan bi euh, dafay gën a yaatu yërmande bi dafay gën a yaatu nañuy dimbalante ñi nga xam ne ñoo ko soxla te yàlla tax jigéen mën naa app góor wërsëg waaye na wàcc boppam ba tolla ku góor ki dimbale ko te yàlla tax waaye ku góor ki bu mu doon yaafuus foo dem rek wax fa sa soxla ñu dimbale bu amaatee soxla ñëw déedéet da ngay jéem a loo xam ne da nga koy da nga koy jëmmal waaw dafa mel ni am na keneen kuy ñëw. yaa oustaz ñu ngi lay ziar. nangu lañ ziar bi ñu ngi ziar bu baax a baax. alhamdulilah tamit chaque jour rek ñu ngi ñuy delloowaate. walay amuñu sa fay. yemal yemal nga at mu jot nga jàppale ñu ci diine ji. walay walay ndax ku nekk xam ne ne jigéen moom ku koy delloo ci diine dafa baax. walay walay lii nag moom maa ko def rek ci yow. dëgg yàlla ci man ci yow laa ko def ah, ci man ko ah, kon kon ci man waaye nag lu am solo mm-hmm. ndax danga nga nekkee da koo may soxna ba pare te amut lu mu ko yore mm-hmm. mu nangu ko loolu nekk sa taalibe mm-hmm. comme enveloppe bi ma yore nag 5 millions moo ci nekk ma daal di ko jox moom mu daal di koy am nu mu dimbandikoo comme que yow yaa ko may am joxal ma ko ko ah, pour moom cinq millions la xam nga yaa ko may soxna te amul lu mu ko yore comme que da nga koo may soxna te amul lu mu ko yore te yow moom wax dëgg yàlla yàlla defar na sa lépp 5 millions yi boo ko defee nga dimbali koo ci daal ci jëmm oustaz waa waaw jërëjëf oustaz jërëjëf ay kontaan nañ ci yow de. kontaan nañ lool sax kontaan nañ ci yow de. oustaz jërëjëf bëgg naa nga continuer waaraate bi ba ci kanam parce que nit ñaa doon ñëw. Oustaz waaraate bi de bëggoon naa ñu continuer ko parce que nit ñaa ngi doon ñëw am na ñeneen ñu des te wax dëgg yàlla lii lii lii doyuma waaw. jërëjëf Oustaz man moom kontaan si yow xaafal xaalis bi waaye eh xaafal lii waaye xaafal lii waaye tojamaan ma xame la xaafal lii eh xaafal lii xam naa la tojamaan nga eh xaafal lii waaye yow ma ne la xaafal xaalis bi laa wax indil xaalis bi eh jëlal doo jox ma trois indil dama ne waa jox da ngay indi xaalis bu war a doo indi xaalis waaye da ngay indi xaalis mbooloo mi mbooloo mi mbooloo mi mbooloo amul mbooloo mi